abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV dal leen ak jàmm mbokki internautes yi jamono bi ñu toll nii nag mën nañu mu di ay voiture yu nga xam ne rek ñi ngi koy euh, nemmiku euh, foofule ca site kër góor gi ñu jaaba jonge euh, di dem ak ñëw nag ci buntu kër ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko di ay oto yu nga xam ne nag mën nañu miin nañ ko lool ñu laan ànd ak caravane ki nga xam ne rek moom mooy président Macky Sall buy faral di génn nekkul benn nekkul ñaar di ay oto yu nga xam ne ne yu baree baree bari lañ foofale ca buntu kër ki nga xam ne rek moom mooy usmaan Sonko mën nañ ne nag gannaaw bi ñu ko daldee dee nemmiku nekkat lan moo war a doon seeni i tànk foofale li si gën a doy waar nag léeg-léeg dañuy génnee seen i ballek daldi di koy sox ci kaw doon tele nag kenn xamagul lan moo leen indi foofale ca cité kër góor gi est-ce que nekkul ni nag nappaate rek pour fa yéene nekkat danañ jël si par la force ki nga xam ne rek moom mooy euh, président Ousmane Sonko lu ci mënti am mooy ne jamono bi ñu toll nii ñoom ñoo à pouvoir ci fi nga xam ne rek moom mooy cité kër góor gi nekkat ña nga fay daagu nu mu leen neexee donte nag ba jamono bi ñu toll nii mën nañoo jàpp ko nekkat jëlaguñ ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko ndaxte kat ba léegi ma nga foofalee ca këram. ci ay xibaar yu nga xam ne rek daal dinañ koy mujj jot di leen wax nag ngeen di wéy di abonné te ngeen di bës kolos de notification bi